allo salaamaaleykum man la maam maay ñëw ci live ndaw di waxtaan ak yéen euh, di waxtaan ak euh, Farine euh, fake news yi nag bëri na trop y en a tellement tellement tellement ba les gens ils sont perdus mais maa ngi wax ne sénégalais yi que ne parce que temps yëpp ñu ngi naan Karim Wade dafa def dil ak Macky Sall Macky Sall dafa def deal deal boobu noonu. man de personnellement j'y crois pas te foog naa ne euh, Karim Wade en tant que doomu Ablaye Wade du wàccee boppam gën a jàng Macky Sall nga xamante ni fu mu taxaw wax je pense que ne Sénégal rek lañuy dem teg ma teg euh, farine teg Karim Wade nit yi di dem di votel farine man personnellement man maam bu ñu ma tegaloon farine tegal ma Karim Wade je vote tout de suite Karim Wade je cherche même pas à comprendre je vote Karim Wade mooy rumeur yi ñuy def pour euh, jéem a daanal Karim pour jéem a yàq euh, dissoudre opposition bi il faut que sénégalais yi soient que ne euh, maa ngi nuyu bu baax a baax Khalid Sakho il faut que sénégalais yi soient que ne tey Macky Sall xam na ne moom il est cuune moom président yi fi jaar yëpp ñi ñu jot am yëpp moom moo ci gën a cuune tu vois mais. il divise pour mieux régner il faut que mu gëmloo ñu ne Karim Wade bon na il faut mu gëmloo ñu ne Sonko euh, kii la euh, xalafiste la euh, il faut mu gëmloo ñu ne kii baaxul kii baaxul kii baaxul pour que moom mu mun a doon le best parce qu'il a besoin de se reconnaître à travers l'opposition parce que moom sans l'opposition il va pas exister léegi nañu ah il faut que ñu mën a dissocier ah ay mauvaise nouvelle fausse nouvelle ak vraie nouvelle man de personnellement lay waat bii ma gis ak kan waat bi nga xamante ne mos naa wax moom benn nekkuma nekkul sama candidat man j'ai voté Sonko mais dëgg moo neexut a wax daal parce que man même Atepa sax bi ma toogee moom loolu laa ko wax ndax Rousseau Macky Sall doon sa président de la République parce que ci candidat yi fi jaar yëpp ci élégance ci raffinerie ci liggéey moom moo ci gën a cuune mooy ki ci gën a lañ jël def ko mu nekk président moo fi forcé boppam mu ne mooy doon président de la république Sénégal ñu nangul ko ko nag de mais mu nekk cuune mënuñu ci dara on est on dit on accepte mais nag bu ñu profitoo ci loolu ñu jël suñu garmi yàlla yi nga xamante ne ñoom c'est des gens compétents ñi nga xamante ne bu ñu waxee fu ñu dem du point de vue international ils sont reconnus comme des gens compétents ñuy ñëw di leen di jël di leen dissoudre au profit de notre cuune loolu duñ ko nangu mooy il faut que Sénégal yi ñu génne seen xel que ne amul deal entre euh, Laye waad ak Macky amut. c' est vrai que Laye Wade bu ko neexee doomam gënal ko ñëpp man sama doom moo ma gënal tout le monde j'ai buñ ma ne woon tey jii euh, sacrifier sa doom ak doomu jàmbur mais doomu jàmbur ngay sacrifier bien sûr parce que yow sa doom sa deret la loolu c' est humain voilà c' normal que tey Laye Wade mu am que confiance sur son fils Karim Wade mu nekk benn. deuxièmement au sein de PDS bokkuma PDS mais y' a tellement de lâche. yi ngeen ni ñuy transhumé nii gëmuñu dara ñu ci gën a bëri c'est pas tout le monde am na fa ay góor yàlla de mais am na ñoo xam te ne gëmuñu dara tey jii imaginez-vous Karim Wade ne day ñëw pour xeex pour Sénégal déjà papa ji ñëw na pour xeex kenn topp ko nit yi génnuñu donc Karim waad bu ñëwoon ah jabaram décédé na il a des enfants à nourrir mu wëcc doomam yëpp ñëw pour xeexal Sénégal léegi ku nekk toog buntu këram kenn génnut il sera pas ridicule mais il a man au début je lui en mais bi ma toogee réfléchir ma ne il a fait le bon choix parce que tey bu ñëwoon kenn génnul non seulement dina sacrifier boppam doomam yi dinañu ñàkk ah as tuuti nit yi ko bëggoon PDS dinañu ñàkk parce que Macky Sall dina ko teg ci kaso bi. am na ñu naan dañu naan waa Macky Sall doomu Laye Wade la Macky Sall du doomu ba Laye de parce que li mu def Laye Wade du ko def baayam bu doon doomu Laye waat du toroxal Laye Wade comme ni mu toro euh, euh, du doon toroxal Laye Wade comme ni mu ko toroxalee nii. dem di couper ay retraitam ah dem di bëgg a këram. di ko toroxal ci bëccëgu ndar kaam bu doon baayam du ko def donc arrêtez de dire que ne euh, Macky Sall doomu Laay Wàdd la non non boo xamante ne c'était un traître qui faisait partie de PDS génn na fa léegi présenté wu na président de la République il est lâche et il est méchant léegi il est en train de se venger tey nag ñun amuñu temps ah neen fi dañuy toog di compter ay vengeance su Macky Sall xol bu bon euh, parce que nit ki bu la defee lu bon sax nga def ko lu bon da ngay mel ni moom il faut qu'on sache il faut qu'on à l'essentiel mooy au lieu ñu fiy toog di naan Karim Wade dafa dil ak Laay Wade dafa dil ak Laay Wade dilul ak kenn Laay Wade moom ma gis mu ne cocc Laay Wade moo leen gën a wër yéen ñëpp il est plus euh, ni ñu koy waxatee il est plus intelligent que beaucoup beaucoup de gens suñu maam yi am âge yëpp moom moo leen gën a wër moo leen gën a intelligent moom moo gën a xam li muy def malheureusement problème bii daf ko fekk kàttanam dëgërul voilà donc il est obligé le pauvre ah de se rallier di waxtaan ak nit yi par ci par la bu ko neexee dem Guinée dem Guinée taxul mu dem foofu def fa deal ah. aussi bien que Macky Sall am na droit dem Guinée aussi bien que Laye Wade am na droit dem Guinée parce que Laye Wade dafa nekkoon président avant Macky Sall di fi nekk amoon na ay copains moom avant Macky Sall di fi nekk donc c' normal ko mu dem Guinée c' est normal ko mu dem euh, mu dem ci yeneen dëkk yi c' est normal Laye Wade dul wax kenn donc euh, consigne de vote aaroo na man de j'assume j'ai été voté j'assume mais franchement ah maa ngi regretté sax ñii nga xam te ne ñoom laa demoon di voté la ji je regrette parce que tey jii man dama foogoon ne ne bu ñu demee ba ma Sall sàcc élection yi ñii nga xam te ne ñoo taxoon ba ñuy dem voté ji dinañu génn dem xeex affronter population bi topp seen ginnaaw mais ñu ngi ne topp dem toog seen kër yi ñu ngi ne topp dem toog seen kër yi non rien n'est louche Arona ji nga tey ji Euh, Karim Wade il peut pas venir au Sénégal il est en prison il faut que nit yi xam ko il est en prison Karim Wade tey buy ñëw Sénégal ñu ne ko ràpp tëj ko ci kaso bi Laay Wade lu mu mën a def lu dul négocier doomam c'est tout ce qu'il faut faire bonjour une petite une grande une grande di nga tey situation bi c'est fait en sorte que ah pour que lay Wade ñu mun a wax ne ne dil am na c'est fait en sorte nee na leen ah gouvernement bi ñu am gouvernement psychopathe la psychopathe. psychopathe day dafa xam li sénégalais yi di laaj ak ni ñuy gëmee mu li mu di leen manipuler comme il veut comme il veut. di nga nu ñu manipuler si élection yi ba gëmloo ñëpp ne moom moo gagné invité ñëpp dites-vous bien que de la même façon ah noonu la def pour que euh, pour que Karim ñu mun a wax ne ne Karim Wade euh, am na diir parce que moom Karim Wade arrangé wu xam na ne Karim Wade buy ñëw fii ah moom mu ne ñu ne ko ràpp tëj ko ci kaso bi ñàkk arrangé boobu noonu moo tax il fait tout pour le salir c'est tout il fait tout pour le salir maintenant nag ku mu neex mu gëm deal deal masul am te deal du masa am deal du mos a am ci ci diggante boobu noonu tey bu ñu déglu woon Laay Wade ñun ñëpp ñu woon ci élection bi ah bu boobaa révolution mënoon naa am mais tey jii ah dégluwuñu Laye waad on a on on est parti man mii neena naa je suis parti je pensais que ne bu buñ tolloo fii nii ah dinañu dinañu génn xeex man dama foogoon ñi taxoon may dem di vote ji tey bu Macky Sall sàccoon élection yi dinañu génn xeex mais malheureusement mais mais mais c'est normal Cheikh Sow Laye Wade bu ko neexee intéressé wu que son fils parce que ji nga tey jii ñi ñu dem votel ah li Laye Wade xeexal Sénégal ñoom sax xeexaluñ ko Sénégal tenue merci li ji nga ñu ñu dem voté lii Laay Wàdd xeexal Sénégal ak lii Sénégal jaral Laay Wàdd ñooñu jaralu leen ko tey jii lii rek moo leen koy firndeel parce que est-ce que bu ñu amoon âge Laay Wàdd ah est-ce bu ñu amoon âge Laay Wàdd tey jii dinañu génn di xeexal Sénégal parce que tey ñoom am nañu kàttan am nañu kàttan comme euh, ils sont jeunes ñi dem yëpp yëpp yëpp candidats yi dem nii ils sont jeunes Macky dem ak fichier bu bon ah ñun bu ñuy génn def manifestation ils sont même pas sortis ñun bu ñuy génne di xeex fii ah ñu ci gën a bëri génnuñu xeexuñu xeex bu ñu xeexee xeexuñu ko deux trois fois lu ñu génn def manifestation opposition point barre opposition bi ñu ci génn yëpp yëpp kat moo ci nangu woon dem ba ñu jàpp ko xale yi ñoo doon dem ñu leen di jàpp ñi waa dafa jot ñaata yoon lañu leen jàpp ci mbedd bi plusieurs fois on l'aura mis en prison waa dafa jot plusieurs fois dem nañ di xeex ñu def leen en prison opposition bi defuñu ko di nga waat bi ñu naan il s'intéresse qu'à son fils nombre de fois bi Abdou Diouf dem jël waat def ko ci prison bi du benn du ñaar du ñett kan moo nangu souffrance bi laay laywaat di souffrir prison ban opposition moo ko nangu waat mi souffrir ba doomam souffrir prison ah ban opposition tey jii moo nangu moom dem prison ba ay doomam ay sëtam dem déedéet bu manifestation amee léegi opposition bi seen doom yi ci ginnaaw lañ leen di teg wàcc leen seen kër ñun doomu baadoole yi ñooy dem ànd ak ñoom ñoom isono en ont rien def nañ ko bu ñu paree dañuy am seen garde corps bu ñu paree dugg dem seen yoon benn yoon lañ fi jël lacrymogène kon tey man mun naa wax ne ne bu ñuy wax ne bëgg Sénégal laay wàdd sax li mu ca nangu woon def ci bakkanam amaguñu opposition boo xam ne nangu na cee def comme ni mu ni ni ci laay wàdd sonne woon Macky bi ñuy ne cuune la sax ba mu bëggee woon jël pouvoir bi sax ah ay copain wam nangu woon nañu génn ci mbedd bi affronté xeex te temps li mu dajal population sénégalaise Laay Wàdd dajalu ko population sénégalaise mais tey opposition bi kan moo nangu génn xeex ngir Sénégal physiquement ne déedéet sàcc nañu élection yi lii du fi amee on n'a pas eu ça ñuy toog naan non dañuy bañ mu am ay mort Laay Wàdd Macky Sall bi mu buggee woon jël euh, pouvoir bi dafa nangu woon mu am ay mort ana Mamadou Diop dafa génn euh, dafa génn àdduna te pourtant sëriñ yi ñëpp le monde était tout le monde était là waxuñu woon ne déedéet bu mu am ay mort bu leen génn léegi tey euh, de toutes les façons là c'est trop tard cher Sow on peut plus sortir parce que de toutes les façons sortir on devait sortir après les élections là on peut plus sortir mais il faut pas qu'on tombe sur le piège des gens de APR parce que tey ñu ngi leen di gëmloo ne ne Tanor Dieng dafa feebar Tanor Dieng ah, dara jot ko mu ngi ne cocc ay mauvaise nouvelle lañ leen defal di leen consacré woo chaque jour ngeen di ngeen di ci disserté wu di def dissertation ñuy continuer di sàcc suñu ressources yi ñuy continuer di profito si là de nekk leen di calculer nombre de contrats yi fi Farine ko signé Farine mu ngi rawale ressources un par un yéen a ngi toog di lijjante feebaru Tanor Dieng ah parce que xam nañ ne fake news lañu bëgg après ñu ñëw ne leen ne waa Laay Wade demoon na Guinée dem signé ah parce que dafa bëgg doomam parce que bu doomam dafa bëgg a nekk mais il a raison franchement il a raison euh, mu bëgg doomam parce que tey boo xoolee lâche yi nekk biir PDS je vais pas dire tout le monde mais il y a tellement de lache moo ay doomam rek la ci woolu parce que boo gisee ñi transhumé yëpp yëpp yëpp yëpp avec tous ces lâches là ngeen bëgg léegi mu ne déedéet moom ñu waa PDS lay tànn kenn ku mu ci wóolu wàcc doomam parce que xam na ni moom fu mu deewee doomam dina fa deewee li ko métti dina métti doomam mais tey lâche yi nekk PDS nga xamante ne tey jii 1 2 3 ñu ngi xaar rek fu leen farine kobosee rek jox leen poste compter leen le nombre de transhumants qui y vont te loolu c'est que le début parce que léegi nii après petit à petit ñoom ñëpp dinañ dem xam nga dañuy foog ne ne farine instant bi euh, gouvernement bu bees bi du ci dugal Mimi Touré du ci dugal diw di ci dugal diw gis nga farine c'est un psychopathe xam na ne bu ñëwee dugalandoo leen yéen ñëpp sénégalais yi du ñu fàtte élection yi moo tax fu mu nekk nii da ci dugal benn par benn day dugal kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn voilà bu dugalee kenn ba pare après mu dugal keneen maa ngi fi bii benn d'accord bu dugalee kenn ba pare ah ji nga semaine prochaine di ngeen dégg ne nommé na moom mi Touré ñoom ñëpp prévoir na poste bu mu leen di jox mais bu jékki-jékkee dugal leen rek day am révolte parce que xam na dafa sàcc élection yi moo tax da leen dugalal kenn ba ngeen fàtte ba ngeen coow ci après mu dugalaat leen keneen keneen keneen ce qui fekk que ñoom ñëpp dinañ am poste vous allez vous retrouver avec 100 ministres ah vous n'allez même pas voir la chose arriver Farine mu ngi leen di jàng benn par benn di nga même xaju këram yi sax dina leen jox poste ministre ngeen toog fii ba am ay xaju kër yoo xam te ne ay post ministre la ñuy doon ay poste député parce que ku ci nekk mu ngi xool pion bam nu mu koy placé bu placé kenn ba pare mu gis ne population bi kenn réagirul mu placé waat une deuxième après une troisième après une quatrième après ñoom ñëpp dinañ am poste on va se retrouver avec les mêmes têtes la mafia est là mooy mafia bi ñu ngi fii def na ko ba biir PDS ah dafa dafa def ay pion mafia spécial yoo xamante ne tey ñoom ñooy maîtriser PDS ñoo koy jox information yëpp mu am lu mu bëgg a xam PDS da koy xam parce que c'est des lâches yoo xamante ne ñu ngi fa saay boo leen gisee euh, ñu foog ne ne laay wàdd lañu ñu àndal fekkante woo ñu ngi koy jaay lu ñu naan bëñ euh, bëñ weex na mais deret a ci nekk ah ñu ngi jaay laay wàdd tous les jours looloo tax Karim Wade ñëwut parce que tey xam na ne il est il est entouré de lâches les gens son lâches lâches yu bëri ñoo nekk biir PDS di dem di yóbbu bi biir euh, Pastef tamit bu leen foog ni ñëpp a bëgg Sonko ah y yoo xamante ne boo ko gisee sax ci seen commentaire boo commencé di wax yenn yi ci Sonko nga gis tout de suite il se dévoile dinañ sol t-shirt Sonko dinañ nekk fépp fu Sonko nekk mais c'est des lâches donc à cause de ces lâches là moo tax ba Sénégal mënul dem meetar tey nag. il faut que ñu mën a dissocier ñi nga xam te ne tey ji Sénégal moo leen ñor ak ñi nga xam te ne dañu bëgg a profité ci politique bi pour am xaalis pour mën a tekki di manipuler nit yi te ci ñooñu la Macky Sall di jaar ah di jaar pour mën a dissoudre parti politique yi yëpp ba bu ñu paree Benno Bokk Bakaar rek a fi nekk mooy ñun ñëpp ñooy àndandoo di def bàkkaar ànd ak moom te tey c'est que le début moo tax maa ngi woo population bi yëpp population sénégalaise yëpp A ba Z ma kenn surtout ñuy nekk ci diaspora bi c'est le moment de se réunir waxuma ñu yónneeti politicien mu ñuy xeexal politiciens yi si ñun lañu bokk mais na nañu ñëw ànd ak ñun en tant que citoyen ñu mën a affronter Macky Sall parce que ji nga tey jii Sénégal ci périr lay dem périr man de franchement sant naa yàlla ba ma ko voté lulee j'ai rien regretté amul benn regret bu ma demuloon élection j'allais m'en vouloir parce que dinaa ni à cause de man la Macky Sall toog fii su ba ma demee voté sant naa yàlla bi ma voté contre Macky Sall parce que tey ñàkkum ndox mi nga xam ne moom la Sénégalais yi di dund au moins xam naa ni contribué wu ma ci tey xam naa ni ressources yi nga xam te ne moom la ñuy jël di ko lapider di ko may Occident yi xam naa ni contribué wu ma ci xam naa ne tey toroxange Sénégalais yëpp je dois tranquille j'ai pas contribué à leur misère parce que j'ai dit non donc rien que de dire non man j'ai l'esprit tranquille tey ñëpp ñi nga xam xamante ne tey ñoo botteel Macky Sall ah amee nañu ak ñi nga xamante ne tey yeewu nañu Sénégal amuñu ndox parce que ndox xam nga temps wu waat dañ doon ne courant du am courant du am mais ndox c'est vital l'eau est vitale man je préfère ma am ndox di sangu bës bu nekk di naan nekk en bonne santé que di am courant l'eau est vitale tey lim leen xañ moom la ñëpp di wër ci àdduna moo nekk meilleure boisson mooy ndox loola leen Macky Sall xañ ñu dem ba ndakaar Macky ba mu demee dékkil robine mbedd yi nga xam ni ne man nee naa avant avant 1900 fekk na robinet mbedd yi abolir nañ ko Sénégal Macky mi judd après indépendance moo ñëw dékkilaat encore euh, robine mbedd yi c'est que xam ngeen ni Macky Sall ah c'est un adepte du sous-développement c'est un adepte du sous-développement président boo xamante ne ba nga ñëwee fekk ay robinet nga ñëw euh, fekk kër yi am robinet nga dem couper robinet yi ba ñuy mujj ci robinet mbedd ci teen ngeen di mujjee après boobu robinet mbedd yi teen la ñuy mujjee mooy ku nekk dina gas këram pour mun a am ndox foofu lañ toll ak gouvernement bi en 2000 te ñu doon ne bu ñu yegsee en mille Sénégal day mel ni Paris Dakar day mel ni Paris en 2000 ñu yegsi si ñu dellu ci robine ndox ci robine mbedd c'est qu'on a un sérieux problème ñu nangu ko ba dee nag parce que yàlla tegu fi kenn la mu mënut yàlla tegu fi kenn la mu mënut man de personnellement ah xam naa ni farine munul développer économie kenn parce que dëkk bu amul ndox fexeel ba touristes yi ñëw vacances ci dëkk bu amul ndox dëkk bu amul ndox touriste du dem vacances naan day dem rooti ah. te man personnellement sama yaram bu neex bii farine man ba tànk sa dëkk boobu amul ndox bul yaakaar sama ñëw fa man dëkk ba amul ndox moom max moom defu defuñu lenn parce que l'eau est nit yi dañuy dem di def nomade sax pour mën a trouver dëkk bu am ndox pour installer wu fa donc tey jii Macky bu leen nee day defar xamal ne parewul defar ba mu ñëwee bañ ko falee ba pare dem ngénte ak dem mariage la la la la def boppam pour présider ngénte yax mariage yi foofu nga xam ne parewul defar daara donc tey ñun ñoo mën a defar Sénégal c'est-à-dire ñun ñi nga xam te ne ñoo nekk sénégalais nekk doomu baadoo la te ñu génn ci dëkk bi ndax du ñëpp mën a dem ñoom ñoo mën a defar Sénégal le marché chez chez tey boo leen gisee Auchan ñëw di installé wu Sénégal parce que xam nañu fii amatul marché mooy fii boutique yi bëri nañu koñ boo dem am na boutique man koñ bi ma nekk nii am na lu ëpp di boutiques donc fii amatul marché le marché se trouve au Sénégal en Afrique marché tali yi Afrique la war a defar tali Afrique la ñu war a defar école Afrique la ñu war a defar lépp lépp lépp lépp luy développement Afrique la war a am tey nag bu ñu xamul ne marché bi Afrique la ñu jéem a conquérir le ma les marché euh, le marché national jéem a def en sorte que créer suñuy entreprise nationale balaa multinationale bi di ñëw di installé wu définitivement ba nga xamante ne ñun dootuñu sax amati dërëm ba naan dañuy ubbi. et que marché yëpp jël nañ ko il faut que ñu jóg il faut que ñu yeewu parce que multinationale bi moom il est toujours à l'afflux à la recherche du marché fépp fu joxe xaalis rek fa la ñuy dem tubaab bi bu tolloo fii gis na ka nekk États-Unis hamburger lay lekk day dem foofu di ko defaral hamburger bu tubaab bi bu tolloo fii mu gis ne Sénégal ña fa nekk amuñu làmp comme ni Macron def xam na ne amuñu làmp te ñun suñu xel demul pour ñu defar ay làmp Euh, former suñuy jeunes pour ñu defal ay làmp ñoom dañuy ñëw defaral ñu ko jël xaalis bi def ko seen kub dëkk di ko développer seen dëkk léegi na loolu bu ñu bañee mu am ñun il faut que ñu def suñuy entreprise locale yoo xam te ne dañu dëgër waxuma ay benn dër butiku mbagg benn dërëmu butiku mbagg boo xamante ne ah, euh, dara jagu fa mënul conquérir Auchan Auchan hypermarché moo ko mun a conquérir mooy tey jii bu ñu bëggee conquérir ñëpp ñu nga xam te ne multinationales yi installé wu il faut que on se regroupe en coopérative parce que tey suñu milliardaires yi ñoom xalaatuñu développer Sénégal milliardaire boo gis Sénégal ay kër lay rangale milliardaire boo gis Sénégal ay intérêt personnel am wutul sax luy développer du point de vie international loo xam te ne naam renommé déedéet ñoom seen intérêt personnel def nañ ko bu ñu amee sax bu bëree bëri dañuy dem tabax ji ay kër étranger parce que seen dëkk yëttalu leen ñoom préfère nañu am gratte-ciel France que tabax seen dëkk gratte-ciel kon ñii ñëpp Sénégal yëttalu leen tey Luc Marème mii am na ay patrimoine ci suñu suñu xel dugg na suñu maayin ba am ay patrimoine bu jógee sol ay benn ndoketam ak ñaari caraxam ñu naan maire bi moo simple maire bi mu ngi leen di gaañ boo Luc Marème mu ngi leen di gaañ mooy mu ngi nen seen kaw di ci boof te vous vous rendez même pas compte parce que da ngeen ñu gën a bëri dañuy dem jaaye seen ngor ak benn matelas ñenn ñi seen benn matelas matelas la ñu jaayee seen ngor ñeen ñi paquetu spaghetti la ñu jaayee seen ngor lëg mareem ne comme waa dëkk bi ñoom seen ambition si si spaghetti la toll ak ci matelas man sama ambition bëgg naa fu ma toog bu ma nee tant chauffeur euh, avion bi pare na mu yóbbu ma lekk ji ceeb États-Unis ma dem defi ji shopping France donc ñoom dama leen di may ay matelas comme ça période élection ñu ñëw voté laat ma parce que am na ñoo xamante ne ah période élection encore toog nañ fi ñàkkaloo nañ leen ndox de période élection bu ñu paree nañ demaat encore voté leen pour ñu continuer di di di di di di di di di di tegaat fi farine ak jabaram am na ñoo xamante ne ils sont pas prêts ils sont tellement accros à ces sacs de riz ba ils se rendent même pas compte de la connerie humaine xalaatuñu ne ne ñoom ñu ngi nekk di gas pax bi nga xamante ne ci lañ leen di suul mooy bépp nit boo xamante ne tey jii dem na votel Farid pax bi koy suul pax bi euh, euh, euh, ñu koy waxatee kàmb bi ñu koy suul moom la nekk di gas ils le font nag pour un sac de riz man nangu naa dee sax si àll mooy fi ma lëg ma rem naan dama bëgg ay milliards ma ne ko ah nañu amandoo milliards ba pare jox ma milliards comme ni nga amee milliards bu ñu paree ma votel la ma xam ne ñun ñaar ñooy àndandoo tekki mais lëg ma da jox saaku ceeb pour gagner ay milliards donc il faut vraiment venir en Afrique en particulier au Sénégal ñuy jox nit saaku ceeb ak benn matelas muy dem di voter président bi pour mu doon milliardaire fàtte ay doomam fàtte njabootam fàtte ñëpp tey nag il faut que ñun ñu xam ne ne doomu baadoo la mun na am e, mun na créer entreprise doomu baadoo la mun na imposer wu doomu baadoo la nit la am na droit comme les autres et que doomu baadoola waratu la nangu ñu di ko jëndee benn matelas bu bu bon matelas yu bon yoo xamante ne maam yi sax bu dajale woon tuuti sax xëy na mun na ko may ñooñu mooy lii lëg mareem di mayee te doon milliardaire maam mi nga xamante ne day jaay carotte sax war na ko mën a maye muy matelas matelas yu bon nekku sax avec ressort parce que avec ressort sax bu mun nga ko téye ay année mais boo xamante ne boo ci tëddee di 6 mois mu yàqu moom la leen lëg di may parce qu'il vous elle vous insulte mooy vous êtes bête man je veux réussir sur votre dos te boo leen toogee ba nga xam xamante ni ku mel ni lëg mareem mooy ñëw di leen considérer vous êtes bête devant tout le monde di leen insulter devant tout le monde parce que ça c'est de l'insulte yëkkati matelas bu bon a bon a bon boo xamante ne ah boo ko joxoon xaj sax du ki tëdd mu ñëw yëkkati ne leen am jël leen ngeen di ko remercier ah mu jënd botam yu bot def na ko ba muy ñëw ca kër ga xam na kër ga da ngay xuus pour dugg mu dem jënd ay bot wane ne moom mun na xuus xuus kañ di ko mën ndax bu fekkee ne benn yoon ngay xuus si at bi nga doon milliardaire ah mooy fonction bi bi lëg Marème utiliser mooy benn loolu lay génn ci pale bi sol ay botam bu fekkee am na inondation ñëw nuyu leen bu paree raxas boobu loxoom yi sangu ba set deg parfum wam xam nga bu paree doon na milliardaire elle la fonction la plus facile pour gagner de l'argent au Sénégal mooy fonction wu lëg Marème fonction boobu noonu moo gën a yomb moo tax gel yi yëpp ñu ngi dem ñenn ñu bëggul liggéey yëpp bëgg facilité ñu ngi dem di dandiner leur fesse à côté de farine parce que xam ne à côté de farine y a les fonctions les plus faciles euh, côté farine euh, euh, ni ñu koy waxatee nga la courante Macky am na fa salaire Modou Macky am na fa salaire mooy les fonctions les plus faciles yoo xamante ne tu fous rien dans la vie mooy fonction yu mën a gën a dellul dëkk en arrière fonction que tu retrouves nulle part fonction yi am APR foofu rek la am mooy terminus des foofu rek ngay mën a tuddee tuddee sa bopp Modou Macky am nga am nga salaire tuddee nga sa bopp Koura Macky am nga salaire donc moo tax dof yi sax nañ tuddee seen bopp dofu Macky comme ça ñu am xaj yi ku am xaj say tey Sénégal bu bëggee am salaire na ko tuddee Macky tuddee bu ko tuddee Macky rek na ci yokk Macky rek am na salaire mooy les fonctions les plus débiles de la terre xam nga pour mën a développer le parasite anti développement moom moo am ci APR mooy Benno Bokk Yaakaar moo tax ñoom ñëpp ña nekk ca kaw ñoom ñëpp am nañ koll ñoom ñëpp seen biir dafa rëy ñoom ñëpp il ressemble à rien du tout parce que bu ñu xëyee fu nit yi di xalaatee nu ñuy nu liggéeyee gis ngeen ko même farba boobu noonu sax farba far farba ngoom euh, député boobu sax gis ngeen ko koll bi moom nee na moom nee na guddi si day toog di waxtaan ak ay xaritam ba ay trois heures du matin nee na parce que moom il est noctambule Sénégal da dem député ba noctambule la moo tax bëccëg bi boo ko yóbbu assemblée nationale day nelaw ils se grillent même eux-mêmes ñoom seen bopp ils se grillent parce que ñiy toog di réunion ils se rendent même pas compte de la connerie qu'ils débitent loolu Sénégal rek la am Sénégal rek nga am nga am ku mel ni Cissé ñu ne kook la ñuy yónni assemblée la ñuy yónni CEDEAO moom day sànni xaalis bi moom day dem di battre Sénégal on s'est vraiment élure des gens les plus incompétents de la terre dëkku ñag yi sax gisaguma fa loolu mooy li ñu naan ñag yi di leen naan waa ay ñag lañ leen tuddee ñag ñooñu sax ñooñu tane ndax ñooñu ba léegi ah gisaguma seen ministres yi ñuy def comme ñun ñun ñun débilité extrême ñun nekk ñu moyen extrême moo tax bu ñu leen di nax neen di ngeen développé développement boobu da ngeen koy toog di ko fantasmer ci télé bi di ko fantasmer jusqu'à la fin de votre vie vous ne l'aurez jamais ji nga aéroport bii nii été baa ngi ñëwaat dina mbëndaat mbëndaat na woon daaw ba ñu tëj ka été bii dina mbëndaat bu mbëndaatee ah comme Farine moom xelam màccul ne dëkk mun na am ñaari aéroport aéroport Léopold Sédar Senghor ba dañ ko tëj touristes yi sax dañ dul ñëwaat ci bokk parce que bu ñu nee aéroport bi mbënd na billet d'avion yëpp la ñuy retardé ñun ñi fi nekk sax bu ñu bëggoon dem vacances ne dañuy dem bronzé wu ci duñu mën a dem ndax duñu am fu ñuy loolu day ñëw am aéroport bi dans quelques mois day day day mbënd ndax farine lu mbënd rek la mën a defar moom moom lépp ma mbënd lépp lépp lépp gis nga même doomam yi sax dañoo mbënd moo tax ñu day ni ñu day lu mbënd rek la mën a def donc aéroport boobu noonu di ngeen mbënd touristes yi dinañ wàññeeku parce que xam nañu ne aéroport bi day waaj mbënd donc du ñu ñëw parce que du ñu am fu ñu atterrir ce qui fait que ñi nga xam te dañ doon espérer sax gagné as tuuti ci tourisme bi ak artisanat bi ah ñooñu dañuy gën a daanu mooy le développement que vous rêvez là vous l'aurez jamais parce que li gën a bon ci àdduna ah moom ngeen jël rangale ko ñi gën a xam te ne ñoo gën a incompétent ñoom lañ jël rangale ko tey nag Farine bu yéen waa APR bu leen neexee ngeen dem di gëmloo nit yi ne waa dañoo di la Karim Wade ma ne naa la Farine bu àndoon sax ak xaj pour présent présenter wu président de la République xaj ba laay voter à plus forte raison Karim Wade le gars il est civilisé buy làkk français da koy kii noonu buy buy wax da nga xam ni kii dafa am charisme yem day ni nit yi dama koy voté Sonko dafa yem day ni nit yi man nee naa les normaux je vote pour des normaux léegi nag ñi xam ne dañoo dañoo jël seen bopp ne ñoom dañoo juddu rek ah que ne mbufuru moo leen di mbufuru lañ tànn comme président ah ñooñu saa leen regarde mais bu fekkee ne majoritairement <laughs> Sénégal mbufuru lañu bëgg mu diriger leen loolu moom nee na c'est c'est leur choix parce que couleur et goût ça se discute pas mais man moom franchement bu may dem di xëy le matin bu dem voter ji duma xool ku mel ni farin ah xool ku mel ni Lëg Mareem nga xam ne ils sont incompétents de haut en bas ah amuñu lenn lenn amuñu lenn lenn lenn li nga xamante ne merci beaucoup Ferlo amul lenn loo xamante ne ah mun na ma attirer pour may dem di voter nit. mooy lépp li ma bañ ci nit ci président de la république moom lañ jël englobé ko moo tax nee na day tëje xam naa rëbës dina fees parce que président bu incompétent caabi rëbës rek la mën a gérer kese mooy sa sa bët xonk na piw ñu tëj la ci kaso bi farine dangaa pataa ñu tëj la ci kaso bi lëg mareem day lëmbal ñu tëj la ci kaso bi kaso bi ah genre nit yooyu mooy genre maam yi ñoo fay fees kaso dafa amul sax valeur ndax kay yóbbu nit yi kaso il incompétent mooy xamul ña mu war a tëj ak ñu mu war a tëj loolu moo daal Sénégal te nag adepte yi dinañ ne waa Sénégal parce que am ñoo xam ne ndeysaan c'est des petits yeux mooy tuuti bët tuuti bët yi moom bu ñu la benn arena même buy mbënd sax garaaw dañ naan bu ñu ko ŋàccee après le lendemain nañ mën a continuer dem defi ji dem defi ji bëri chinois xam nga bu ñu leen defalee aéroport nañ ne ah ndogalu yàlla la de toute façon après bu ñu paree dañuy ŋàcc ndox mi delluwaat <laughs> léegi nag ñi nga ñi nga euh, débrouillard boobu ngeen def noonu di ko faciliter la tâche moo tax Farine il se mettra jamais en autocritique pour moom il est le président le plus compétent def na ko ba yab weesuñu non mais Farine li mu la bëgg a wax yëpp tey il faut ma wax ko Farine ku yabaate nga non mais Farine ku yabaate la Farine nee na léegi passeport diplomatique yi moom ba ba mu defee cinq ans yëpp jox mbokkam yi yëpp xaju dëkk bi muusu dëkk bi ñëpp am passeport diplomatique ba ñu naan ndeysaan Farine Farine farine farine farine euh, or loi la léegi nee na dafa bëgg a nekk dans la loi dafa bëgg a réglementer passeport diplomatique réglementer wu ko woon démb mais pourquoi aujourd'hui noo farine ku ñu yàpp nga. élection yi ñu ne bëgguñu Aliou Ndiaye génneel Aliou Ndiaye génneel farine deful dara ba élection yi passé mu ne génne na fi premier ministre parce que xam na ne premier ministre mooy organiser élection léegi bu ñu amatulee premier ministre imaginez-vous dans cinq ans. soit Farine dañuy imposer boppam à vie wala daf ñu fuy wàccal dëkk bi dans le chaos kan mooy organiser suñu élection parce que man li ma comprendre mooy premier ministre mooy organiser élection léegi kan moo war a organiser prochaine élection yi reste à voir est-ce que Sénégal dootul amati élection peut-être parce que vu ni mu demee nii dégg naa sax am na ñoo xamante ni ci dégg-dégg laa ko wax gisuma ko nee nañ léegi mu ngi nommé sax ay député yoo xamante ne mosuñu doon député am na ay nit yoo xam te léegi Farine mooy nommé ay député Farine dañ ko ne nommé ministre rek yem ci de léegi day nommé ay député loolu moo nekk débuté début euh, dictature léegi day xool xaritam rek neex na ko mu nommé ko député mu xool Kouramaki rek neex na ko mu nommé ko député léegi noonu la Farine nar a def ak ñun léegi ñun ñu nar a toog di croiser les bras moo tax maa leen di woo il faut que dans avant un an même je peux dire dans six mois il faut qu'on soit milliardaire mooy leadership bi nga xam xamante ni ubbi nañ ko il faut que ku nekk par tous les moyens se démarque pour mettre un euro la dedans comme ça Farine gis na ne sénégalais dañ koo bax ñu toog gérer suñu bopp suñu dëkk parce que Farine ni mu ci amee wàll ñun noonu lañ ci amee wàll mais nag duñu jël dëkk bi wacc ko ci loxo ñu incompétent suñu mbokk ñoo fay dëkk suñu mbokk ñoo fay dund maladie yi gën a bon suñu mbokk yi ñoo koy chopé te amuñu fu ñuy fejoo kon ñun il faut que ñu teg ay solutions immédiates les solution c'est maintenant c'est pas demain c'est pas après-demain maintenant il faut que ñu def solution parce que ki ñu fi teg xamul luy solution benn nit moo fi indi woon solution mu nekk Sonko moom sàcc na élection yi jëlee ko ci Sonko moom xam na ne Sénégal yëpp bu ñu ko tegoon moom physiquement les normaux ñu teg ko teg Sonko les tous les normaux vont aller voter pour Sonko ça c'est sûr xale bi tegu na ci temps non jël na ko teg ko bande touche nekk bokkoo fu mu nekk nii nag ñun ñoo war a jóg affronter son euh, affronter Farine parce que l' avenir c' est vous tey politiciens yëpp ñu ci gën a bëri am nañu liggéey am nañu lépp lu ñuy def peut-être loolu nekkul contrainte ñun la suñu mbokk yi toog fa amuñu liggéey ñun la suñu mbokk yi nekk ci mbedd bi ñun la ñun ñoo am ay doomu taalibe ñun ñoo am mbokk yi souffrir ci hôpitaux yi kon ñun ñoo war a indi apporter une solution parce que ñun ñoo xam luy galère Farine moom oublié na galère yàgg na moom pour lui la galère n'existe étant donné que Luc Marin bu buggee dem États-Unis avion présidentiel bi day woote rek mu ñu jël ko bu buggee dem waxtaan ak got day woo avion présidentiel bi rek ñu jël ko dugal ko fa mu yóbbu dem màkk donc fu mu bëgg a dem léegi avion présidentiel mun naa taxi mooy taxi Luc Marin taxeem la taxeem la moom bu bëggee dem douche sax bu toogee Sénégal bëgg a dem douche États-Unis sax day woo avion présidentiel bi allo ñëw leen jël ma ñu yóbbu ko États-Unis mu dem kaka torché il rentre loolu il faut vraiment nga ñëw Sénégal pour nga mun ko gis moo tax il faut que ñu continuer combat bi maa ngi souhaité yéen yëpp bonne journée